صلاة الذي في كل سار وفي سفر هماني على ما هي مع الحبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر هماني على ما هي مع الحبس والسفر فلا هي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه السلام من له اكتب السفر صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبصر فراقي بالمختار من قبل قادني مكوسا وتبصيرا لدى الجن والبصر رفعت سكور المال حد المقالة لباقي المال بعد بلا كدر صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بي مقسي مع الأمن والبصر صلاة الذي أدعوه عبدا له وإليا وزهابك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني سدد lisani Nawir Janani, Safi Amani, wazid baray barka borom Toba. kon ñu ngi wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokk yi nga xamantene ne yéenay topp suñuy jotaay di ko jaare si bu mag bi di Galaxy TV kat nañu ak yeen ci benen jotay waye nak ñu am ci tay ay gan yu tedd ci ñun euh melne Serigne Imam Modou Gueye ak Serigne Moussa Seye mi nga xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci euh, dëkk bi kon laata may yaatal rek mbokk yi damay jox sëñ musa mu ubbel ko ci wàllu xasida yi bu noppee nuyoo bu ko defee nag ñu jox sëriñ imam mu doog nuyoo kon bismillah sëñ Moussa auzu billahi min asheytaan rajimi bismillahi rahmani rahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بارك برمتبا إنما الأعمال أعمال بالنيات والنيات تبرك بزادات وقلبك هلا شادات نمواتي تبكي أرادي عليهم كسماواتي أبكي عليهم وارجوم في البكاء خدن رضوان من في خابو بالخلاوات يا لفرس يا لا فضل الأكابر من خابوا لرب داوم الخلوات تبكي ليالي عليك وسرور مان مثل بود الخلوات كانوا عبادا بتوات لربي ما وكان جل لهم ربا بمناتي وكان جللهم ربا بمناتي غانوم يعودون تلك الورد ما سبهم من الخلال من أسباب المصيبات من الخلال من أسباب المصيبات كالنوم إذا ليل أرحاب سدر صاح لكن khammo sirahan lixiyaay du junnaati masha allah sëñ ci ubbi gi nga xamantene mom nga ubbil suñuy imam mu wara amé jotay bi kon dañ lay baye rek nga nuyo mbokk yi nga xamantene ñoy ñu lay seetaan waaye nak diko ko sen télévision Galaxy kon bismillah sëñ musa waaw salaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk talibé yépp ñu leen nuyu baax di leen ziar di ziar eh, mbok juliti mbok talibi yep di ziar baax képp koo xam si buru ngi suivre seen mag bi Galaxy TV mang lay ziar bax di lay ziar bax sëriñ bi ak sama jëwriñ madena imam mang koy ziar bu bax di len ziar mbok julji ak mbok talibi yep di ñaan bax suñu borom defal ñu magalu jam barki borom tuwa barki Sëriñ Touba Moussa ci nuyo bu matale bi di wax amin barki Cheikhul Khadim kon dañuy jox. suñu jëwrin sëñ euh, imam euh, bu ko defee rek moom it mu nuyoo waaye nag mbokk yi ñu leen di fàttale thème bi nga xamante ne tey moom la ñu bëgg waxtaane muy yoonu géej gi ñu dalal ci nag euh, sëriñ imam Modou Gueye incha allahu rabbi kon dañ koy jox kàddu gi rek mu nuyoo bu noppee nag ñu soog a soobu ci waxtaan yi mbokk yi kon bisimilah imam bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah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 di ko ñaanal suñu borom mu defal ko tawféex bu baax ba yéene ji nga xamante ni am na ko ngir liggéeyal Cheikhul Khadim mu def ko nam ko soobee te ñu ànd ko ak moom te lépp amee ci ndam yu yaatu yaatu ak euh, xéewal yu yaatu te barkeel itam di nokkeel mboolem julli bi yëpp tamit ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ jub muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bisu cant gi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim woote ginnaaw bi mu dajee coono yu métti ya ngir ñu santale ko ci boromam noo ngi ndokkeel kon mboolem julli di yëpp di ziyaara mboole mbokk yi nga xam ne nag ñi ngi ñuy di ñu topp mhm. jaaree ci seen bu mag bi di Galaxy TV mhm. di nuyu bu baax mhm. sunu kilifa suñ Baye Dame bi nga xam ne moom mooy kilifa ak jotaay bi di ko ziyaara bu baax a baax te di ko ndokkeel ci initiative bu am solo bi ñaan sunu borom mu defal leen ci tawfeex bu baax a baax di ziyaara tamit bu baax sama mbokk taalibe sama rakk ji sëñ Moussa Seye moom it ni ngeen ko xamee muy ndaw loo xam ne dafa bokk ci kéemtaani sëriñ bi mhm. di nekk ci xasida yi di mhm. ci gont ak di ci fanaan di ci xëy mhm. moom it la koy ndokkeel bu baax a baax di ko ziyaara bu baax a baax itam di di di di am mbégte lool ci bokk ak moom jotaay bi ndax loolu jàpp naa ne fierté la waaye itam tawfeex la ci tawfeex sëriñ bi Euh, ñi ngi ñi ngi ziar ñëpp daal di leen di leen di leen ndokkeel bu baax a baax a baax nag ci mm-hmm. waxtu yi te yi ñu nekk mm-hmm. di ñaan suñu borom mm-hmm. lépp loo xamante ni wax nañ ko fii muy luy jariñ suñu borom def ko aw yiw ci mboolem murid yi waaye rawate nag ci jëmmi Cheikh Mamadou Mountakha ji jërëjëf suñu baay daal amin barke sëñ Tuubaa amin euh, imam Modou Gueye kon mbokk yi mu ngi noonu ginnaaw bi mu nuyoowee euh, ñu koy wax waaleykum salaam wa rahmatullah wa waaye nag di wax mbokk yi thème bi ñu leen indil tey mooy yoonu géej gi kon imam bari waa na sax mbokk yi bari na koo xamante ne da nga koy waxtaanloo ci yoonu géej gi te maanaam du ci bëgg a wax ndax yaa nga xamante ne xew na ci li nga xamante ne moom mooy yoonu géej gi waaye nag mel na ne sëriñ bi dem googu wax na ne mënutoon a ñàkk ndax fa mu toll woon ci yaakaar yi ko jaami yaakaaroon te it fàgguteef bi nga xamante ne nii moom la mënoon a am ngir yaakaar googu bañ a tas rek mooy mel na yoonu géej gi kon lan mooy li nga xamante ne moom nga ñuy indil Imaam Modou Gueye li nga xamante ne nii moom mooy yoonu géej gi. jërëjëf sëñ Baye Dame xam nga loolu dafa am solo. Mhm. tomb la boo xamante ni. Mhm. damay faral di wax waxtu wu nekk waras na ko man di jàngat lu bari. Mhm. di ko waxtaanee ndax li tax mu baax. <clears throat> mooy ci jamono. Euh, li ñuy tuddee inxaafaat yi. dafa bari. te jot na ñu xam bu baax a baax mhm. ni ñuy présenté sëriñ bi mhm. te teg ko rek ci njàngaleem waaye islam teg ko ci bindam mu leer mhm. euh, ndax bu dee tomb bi di yoonu géej gi jàpp naa ne tomb la boo xam ne euh, waras na ko mën a waxtaanee bu baax a baax ngir ay bind yu bare bare bare yi nga xam ne mi ngi ci euh, ñal murid yi waaye mboolem jullit yi yëpp tamit ni ko waxee Cheikhul Khadim ni ñu xamee nga xam ne Cheikh Mamadou Bachir doomam mhm. bi mu koy taarixal di ko di ko mellal mhm. dafa wax ni daal siñ bi boo ko doon tënk mhm. da naan dafa nekk jëmm joo xamante ni moom xule xa rabbaani yan dafa judd rek yàlla dafa judd rek yàlla mooy bi mu gënee àdduna ba nii mu toll lépp boroomam lay yëg lépp boroomam lay jublu lépp tamit boroomam moo nekkoon li nga xamante ni moom mooy jubluwaayam loolu nag tax na kon ginnaaw fi mu jaar jang ci daara way juróom di sëñ Mamour Sali ndax jàngalekat bu mag la woon ginnaaw bi mu ci bi mu fa ba Sali daal di génn àdduna ca déwén sa xam nga ci la woote yoonu murit mu commencé ful bi di bari mbooloo mi di bari kenn ku nekk di di ñëw di jébbalu ñii di jógee ci yeneen turux yi ndax buñ e, bi di tarixatul muridiya bokk na ci tarixa bi nga xam ne moom moo mujjee judd wala ci tarixa yi gën a e, néew ak judd la fii ci ci ci mi la ko fi bi sëriñ bi di woote nag mbooloo mu bari topp si ko ful bu bari ndax njariñ lu ñuy gis ci moom te loolu la jiitu mooy woote ba mu woote woon wax ne de képp koo xam ne njàngum kase moo la fi indi mën ngaa soppi daal di dem faneen képp koo xam ne nag yitte ju kawe mooy bëgg àgg ci yàlla moo la fi indi daanaka kon ñoo bokk pas mën nañoo ànd dox. loolu sëñ ma Lamin Jóob Dagana ci téereem bii di na Nadim nga xam ne taarix la ci taarixu sëriñ bi doy na ci. wax na ni sëriñ bi bi mu waxee loolu li ciy doy waar mooy li ëpp ci mbooloo mi dañoo dem ñi ëpp dañoo dem diggante ni ñenn ñoo xamante ni dañuy sikki sàkk ndax ñu dem wala ñu toog ñii di waxtaan kenn ku nekk ak ka ngay diisool waaye fa mu mujjee mooy li ëpp ci mbooloo moom dañoo dem Cheikhul Khadim nag nekk ci di tarbiya commencé di yéegal murid yi di di di di di di dox ak ñoom loolu nag euh, naqari woon na ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab yi ndax gis nañ cheikh bi sëriñ bi ci ci ci ni muy dundee boroomam mbooloo mi ko topp te ci cosaan li ñu xamoon niñ ko xamee nga xam ne ñu baree bari tubaab bi jëflante na ak ñoom sànq leen benn mu exilé leen génn leen wala mu ray leen sax ñii am na ñoo xam ne dina fekk seen biir daara ray leen ñoom amoon nañ ci tànge jàpp ne kii Cheikhul Khadim mbooloo mii muy dajale ngir mën a jàkkaarloo ak ñoom ngir mën a xeex ak ñoom la loolu ci seen nattukaay. niñ ko xamé ci natukay yom ñom yi ñuy def ci la bokk way itam bokk na ci ay rapport yo xamanteni am nañu ko da def muy ay kat ñen ñi ay doomi soxna lañ ñeneen ñi ci biir administration bi lañ nekkon doon liggéey ak ñom di bind ay bataxal di leen wan nekat kat sëriñ wal wala sering sëriñ bu nekk bawal bo xamanteni wala côté kadior limi def day bu soté moy attaquer leen dal sen kaw loolu la bëgg loolu nak bi mu amee xam nga article bi nga xamanteni ñom sax ñom lañu ñëkke génné defe naa mi ngi am ci le 14 wala 12 mars ci mil 1918 euh, wala 1818 nga xam ne kon géej gi des na waaye teewul loolu dañ dañ doon artu wane ne kat sëriñ bii kat ak mbooloowam mi lim ci jublu rek mooy mën a dal ci ci ci ci seen kaw noonu muy dox lettre yi di dem am na si sax ñoo xamante ni dañu doon dem ak seen i Euh, ba ci maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy colon yi ci waxtu yooyu ngir di leen influencer wan leen kat sëriñ bi faaw ñu teel ko arrêté te loolu tamit ñoom ci seen nattukaay bi ñu ko xoolee dañu ne lii dëgg-dëgg lu yenu maanaa la ndax euh, li sëriñ bi di def acte bi dafa nekk lu stratégie ndax mi ngi ci ruqam toog di woote mbooloo mu baree bare ful bu nekk kenn ku nekk di ñëw loolu bu fekkee amoo xel mu gudd waaye euh, te tamit amoo tawfeex suñu borom da ngay jàpp ne xëy na kii àdduna moo ko moo ko moo ko itteel ci noonu nag ñoom ñu continuer noonu bataaxal yi di dem ba ci ba ñu àgg nag ci euh, le 10 août 1895 10 août 1895 fekk na la jiitu bis boobu nag sëriñ bi sax yeewaloon na sëñ maam Thierno mu dem Ndar nga xam ne Ndar boobu moo nekkoon capital colon yi ngir wane ne kat moom lii ñu koy tuumaal seet na ci wecc ci dara waaye guddi googu sax wax nañ ne. Euh, ci lan li la 9 août bi ci la maam Thierno daal di ñibbisi bi mu ñëwee nee nañu dafa fekk sëriñ bi daal di toog bim ñëwee sëriñ bi dañu ko Thierno matuma wax xam naa lépp ndax boobu rab fekk na rambaajkat yi rambaaj nañ li ñuy rambaaj ba nga xamante ni ñoom takk nañ ba jug ngir mën a jëli sëriñ bi le 10 août ñoom ci la ñu daal di jug ngir mën a jëli sëriñ bi euh, xam nga ki nga xamante ni moom mooy moom moo nekkoon euh, Leclerc moom moom moo leen jiite woon ndax moom moo nekkoon jamono boobu gouverneur bu Louga ci jamono Kolaay ñu daal di ñëw ngir jël si sëriñ bi fekk tamit nag sëriñ bi am na ndigalul boroomam moom it ngir génn dem ci tukki bi moo tax kon tukki bi booy xool dafa am ñaari sabab dafa am bu sababu zahir sababu zahir mooy lii ma doon wax léegi nga xamante ni ci zahir si li ñuy gis mooy sëriñ bi kat am na mbooloo mu topp ci ginnaawam mbooloo mi lan moo ko waral est-ce que nekkul dafa bëgg daal suñu kaw loolu itam am ñu leen ko dëggalal ne leen effectivement mooy sëriñ bi day préparé ngir bëgg jàmmarloo ak yéen te loolu sëriñ bi tontu woon na ci mooy wax ne ñoom kat ma ak ñoom benn jëm-jëm ndax ñoom àdduna lañ bëgg ak lépp lu soxla àdduna man nag yàlla képp la moom moom mooy sama itte eh, bi loolu amee nag ñoom ci la ñu jóg ngir mën a jëli sëriñ bi bu dee sababu bu baatin bi nag nga xam ne gën na xóot ni ma ko waxee léegi Cheikhul Khadim nga xam ne dafa dafa dafa gane àdduna rek daal di yàlla. Euh, Imaam. Hmm. doguma la. Euh, foofu nga nekk dafa am solo. Hmm. te dama bëgg mu gën a yaatu. muy sababu baatin bi. Hmm. laata nga yaatal rek. damay jox Serigne Moussa moom it. mu barkeel wàcc xaside yi. bu ko defee nag ñuy jox la nga wéyale incha allahu rabbi kon bisimilah sëñ Moussa. وقد ذنبي ويوبي ما وراد لي كل كنود جما وجادني بكون نظم صفات لي وللأمة رئيس كشفا وكفاني جملة الرزايات بي وساخ للبي المزايا فإنه جلاء على ذاك القدير وبإجابة دعاء جديد khatuto bi sukri wasana izbikani khanafanai ya masalu khairihi indi dalal tali bikarmin ya zal jalal Ya Allah ya karibuk ya mujibuk صل على الذي بتجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بلال وأصحاب موسى السلام وكن يا دار وكن ماقي وكن لي سائقا فوق المرامي بكن وجل بجاي حياتي صافية لك بي مع الوجور دافية وجل بجاه لياتي صافية لك بي مع الوجور دافية وجل بجاه لياتي صافية لك بي مع الوجور دافية تركل تركل سيد موسى ما شاء الله ndaw la ni ko imaam waxee rek ndaw la waaye nag lépp du ko jeexal rek ci liggéeyal Seexul Xadim waaye nag jaaree ko ci xas dayu tedd yi nga xamante ne moom euh, dafa gaaw ci àggale euh, jaam bi ci suñu boroom kon ñu ngi lay ñaanal nga dem ba laq ci ngërëmal sëriñ bi barke Seexul Xadim kon imaam dañ lay delloo kàddu gi rek mu mel ne yaa ngi woon fu am solo ginnaaw bi nga yaatalee li nga xamante ne mooy sababu saayir bi mel na ne ubbi nga beneen buntu muy sababu zahir bi baatin bi kon dañ lay jox rek imaam nga mën a wéyale incha allahu rabbi jërëjëf sëñ Badam di ndokkilaat bu baax sëñ Moussa ci njàng mu am solo mi waaye rawatina njàng mu mu mu xasriya mi ak roy geek ñu ngi ko ci ndokkil bu baax a baax euh, su ko defee ni ma ko waxee xam nga ne kon saahir mënul ñàkk waaye baatin itam ndax baatin bi nag moom mooy jëmmi ruuxu tukki bi baatin bi e, Cheikhul Khadim ni ma ko waxee nga xam ne Cheikhul Bachir nee na dafa dafa judd rek yàlla e, ginnaaw bi mu jaaree ci jaarukaay yooyu yëpp nag jaar Daaru Salaam jógee fa ñëw ba sanc Touba nag bi mu sañcee Touba ci la ko sunu boroom xamal nattu bi muy jaayante gu rëy goo xam ne war na ko jaayante ak boroomam waaye itam ak sangam bi la jiitu loolu mooy ci fii ci jàkk ji ci Daaru Xudus la defee xalwatu ci fukki fan yu mujj ci koor gi eh, di déeyale ak boroomam ci fukki fan yooyu ci la gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ñu mooy gisee gisee woom bu njëkk ak yonent bi waaye nag boobu nee na mi ngi ko gis ala eh, maanaam ci ci ci ginnaaw daal sans lu mel ni barrage sans lu mel ni rideau waxante moom yonent bi sallallahu alayhi daal di ànd ak waa ahlu badar Eh, sëriñ bi daal koy laaj ñii ñan la mu leeral ko ko ci teggi ni sëriñ bi xam na ko waaye mu mu laaj ko mu wan ko ne kat ñii damaa bëgg bokk ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi xamal ko ne ko kat ñii kat bokk ci ñoom li ko doon maye mooy tur deret te loolu faat na ndax ñoom ñoo jihaad ba taxawal lislaam ni ko sëriñ bi waxee rafaa ahlu badrin al islaama wadaataha al fujjaara wassalaama eh, waaye Cheikhul Xadim nag xamal ko ne ko kat loolu muy bëgg-bëgg bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko blikat bari wa na kuñ ko tek danaka day mujjé salit wala mujj dal di ndax lim ci doon wut du am wa Cheikhul qadim ne ko lu am solo roh gi dal la xamul waye jom ji mom atal nako dal di jaayante nak bi mu jaayante eh, sunu borom xamal ko ne ko kat faaw itam nga genn dekk bi ndax Touba mom yow ya ñaan ne sunu borom wañaal harimana hariman amina wa kun bi hifdhihi kafilan damina sama dëkk bi nag ma ko aaral kon aaral nañ ko li fekk yaa ngi fi benn lor du la dal kon faaw nga génn euh, ca korite ga la dem daal di sanc nag fa nga xamante ni moom mooy Mbàkke Baari Jolof nga xam ne ay dëkku maamam la bi mu sancee foofu nag kon dafa sanc ngir toog di xaar nattu bi mm, muy muy muy saayir si ma doon wax léegi ci loolu euh, fekk na kon sunu borom ne ko kat lii mooy pay gi waaye nag lu metti lay nekk lu tar lu tar lay nekk sëriñ bi nangu ko موتاخ موم شيخ القديم وخنا سبب غيبتي ان الله اراد ان انال منه الجاه وان اكون شافعا لخومي وان اكون خادما في الدوم دا فا وخنا لي سبب توكي بي نياتي كاسل موي باتين بي لي جيتو موي آه، سون بوروم مو نمون ما ام تي موم درجه جوكاي تي درجه جوجو موي suñu borom intiraaf ma reconnaître ma ma nekk Abdullahi di jaamu yàlla bu kawe boo xam ne fa ma ko àgg kenn mosu ko fa àgg ni ko Cheikh Amadou Mountakha di waxee naan sëriñ bi fi mu jaar boroomam kenn mosu ko faa jaar di wax ju wér doon itam liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba faaw ñaareel bi mooy ma nekk koo xamante ni damay damay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne man maay liggéeykatam bi gën a mag te loolu bind na ko ci bind yu bare bare bare wax ko tamit jàpp ne wax ne képp koo xam da ngaa jàpp ne liggéey bi may liggéeyal yonent bi am naa ci dend wala am naa ci moroom yow ci sama xel dafa matul waaye itam ñetteel bi neen li tax li waral sabab bi tukki bi borom dafa namon man Cheikhul Khadim ma mën a jariñ samaw nit bu ëllëgee itam bis penc ma nekk koo xamante man maa leen ni ràmm ci mboolem xeeti tiis tiis ak naqar yi moo tax sëñ Moussa Ka li mu wax ne bu dem gi wolof te kon dem wax ju amul ndax waa jooju dafa firi rek bayitu sëriñ bi lii mu wax ne li sabab tukki bi mooy ñett yi te ñett yi bokk na ci xetali sama xeet te xetal googu la ci jublu mooy ñu bañ a jaamu kudul yàlla ndax bu demul woon ci géej gi su boobaa kon colon yi dañuy daal di gën a teg seen te boobaa réew mi moom ñépp daanaka ay ay ay ay yéeféer la nekk jaayante googu nag mu jaayante ak boroomam moo tax nag mu daal di bind nag ne ci bisu samedi boobee laa génn nag ngir dem liggéeyali yonent bi sallallahu alayhi wa waaye itam nag ngir jaamu yàlla jaamu yàlla goo xamante ca biir noonu laa koy defee ndax jaamu yàlla gii mu doon def mi ngi ko woon def fii ci suufam si waaye nag dinaa jaamu yàlla jaam gu gu kawee lool ci biir noonam yu bon yee ca seen suuf sa ñoom wax na ne xarajtu yawma sabti thamina achara li xidmatil muxtaari fi chahri safar maa ngi génn ci bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bi mooy 18 safar bi ñuy wax 18 safar bi nekkul nekkul weeru tubaab waaye ci weeru wolof bi la weeru safar la loolu mi ngi dëppoo ak le 10 août 1895 la jiitu xam bisu samedi la ajuma ci ngoon mu vendredi ci ngoon di 9 août 1895 di fukki fan ak juróom-ñaar ci safar muy 17 safar bis boobee la Cheikhul Khadim dal di bind xasida gi may wax xasida gi mi ngi ko tënkee aaya alquran bii di xasbunallahu wa ni'mal wakil di aaya boo xamante ni aaya la bu bu am solo ci wàllu kaaraange ci wàllu mucc ci xeetu loor yeeg xeeti musiba yi e, ci biir xasida gi Cheikhul Khadim mi ngi ci laaral ne mucc na ci mboolem lépp luy xeetu lor lor bu bu jugee ci ginne wala mu jugee ci nit wala mu jugee ci keneen ku dul ñoom ci mbindeef yi xam nga kon kooku de na laaral ne noonu yi muy àndal ñoom mënuluñ ko dara waaye itam wax na ci biir xasida gi ne sunu borom day noonu yii mu àndal lépp loo xamante ni ay fexe la ak i musiba yoo xam ne dañ koy jéem ngir jëmee ko ci moom loolu sunu borom nopp na noppi na ci ba pare maanaam fenqal nak ko pare nga xam ne ñoom dañuy sabab sababu saay rek ngir mën a jëm ci moom ci biir xasida gi mu ngi tàmbalee ci xamitu ma yaasimu min ad-darar min kulli shaytaanin wa jinnin wa bashar subhanahu ربنا حفيظنا احتمي bi xafdihi min al balaa wa niqami di nga gis ci biir xasida gi muy wane sunu borom ne ko man yow laa delloo sama lépp fekk la ko jiitu itam bind na moom Cheikhul Khadim wax ko sëñ ma la mi nettal na ko ci irwa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ne ko doxal dem bu dara aar naa la euh, sëriñ bi itam wax na ni ci xasida gi ci la ci la sangewoo maanaam ci la amee tata ci la amee kaaraange gi nga xam ne moo tax noonu yi mbooleem pexe yi ñu doon fexe ak di ko jéem ngir dal ci kaw munuñu ko su ko defee nag mu mu daal di mu daal di mu daal di génn nag bésu samedi bi ci fajar euh, woo na Cheikh Mouhamadul Fadel ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ñi nga xam ne jamono boobu ñoom ñoo nekkoon ñi ñi gën a mag ci ci ci ay ay ay ay doomam moom sëriñ bi. Cheikh Mouhamadul Fadel nettali na ko sax kaset bi ñun ñëpp dégg nañ ko defe naa mu ngi ci mi ngi ci YouTube bi wax ne ci fajar ga sëriñ bi dalee na woo daal di daal di daal di teg loxoom ci seen seen seen seen bopp ñoom ñaar daal daal di leen wax ne dénk naa leen yàlla. am na ñu ci boole ne ne dénk naa leen yàlla mi nga xam ne mosuma ko dénk dara mu réer euh, ne leen dénk naa leen yàlla ak seen baay Cerno ndax sëñ maam Cerno ginnaaw bi sëñ bi demee ci tukki bi moom moo yoroon njaboot gi nag di leen di leen toppatoo euh, sëñ bi nag daal di daal di dox ngir wuy ji ndar waaye laataa ndar xam nga jaar na ci jaaruwaay yu baree baree bare kon ci bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wi euh, di tombek ak le 10 août 1895 ci la nag Cheikhul Khadim génne ci këram googee mu sanc woon ngir jaamu yàlla ak liggéey yonent bi di màkki baari nag ngir dem ci tukkib géej gi nga xam ne day am ay étape ak étape jaar euh, fi nga xamante ni moom mooy jeewal jaar kokki jaar Louga laataa muy àgg ndar ndar itam def na fa niñ ko waxee dinañ ci ñëw ay ay ay ay fan yu bare bare bari weer ak lu teg laataa muy dem ndakaar ba ñu koy exilé ko génnee ko waaye diggante bi nga xamante ni moom la Cheikhul Khadim jógee Touba dem Mbacke baari sanc ko loolu lépp lam ci jublu woon rek mooy toog ngir mën a xaar natt bi nga xamante ni moom mi ngi ñëw euh, ci samedi ba nag ci la jógee Bari daal di daal di daal di jeewal boobu fekk na noonu yi di tubaab bi ak Leclerc mi nga xamante ni moom moo nekkoon commandant bu Louga bi nga xamante ni moom ci ci ci tukki bi sax saahir si sëriñ bi wax na ne li ëpp ci moom la sababoo ndax ka dafa nekkoon goro euh, ki nga xamante ni moom mooy gouverneur bu Ndar jamono booba euh, di di di di Faidherbe bu moom. wax na ne li ëpp ci tukkib géej gi moom moo ko sabab moom Leclerc moomu. ndax parce que bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo daa adressé tubaab tubaab bi. Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ay chef am leen wan ne kat sëriñ bi moom nu ñu mën a gën a gaaw rek ngir faagaagal ko benn ñu ñu jël bakkanam wala ñu génnee ko réew mi wala daal nañ nañ ci nañ ciy wuti pexe. Cheikhul Khadim wax na ne moom daawul wax ci man lu baax du ko seere te képp ko dégg sax ngay wax ci man lu baax sax da da ciy mere nga xam ne saahir si bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a sabab loolu moo tax ci irwa xam nga sëñ ma Lamin day day day utiliser ñetti utile day day wax naan ah, maanaam al mutanassir day wax day wax itam naan wasiru sudaani yi day wax naan tamit wasiru nasraan yi bu dee bu fekkee dafa wax wasiru nasraan yi eh, kim ci jublu mooy Leclerc mi am na ñeneen ñi nga xamante ni nag ñoom ay ay nit ñu ñuul lañ ñoo xamante ni ñoom comme Doudou Mamay mi nga xamante ni noonu la woon ci sëriñ bi bokk ci ñi ko daan jaxase naka noonu ma Abdoulou moom it moom sax Cheikh Abdoul Fadil mii may wax nettali na ko nettali boo xam ne ci ci ci mi ngi ci mi bi wax ne moom ci boppam moo dem jël cachet boo xamante ni dafa fexe ba am eh, cachet wu sëriñ bi. tampoo ko ci adressé ko ki nga xamante ni moom moo nekkoon gouverneur bu ndar wan ko ne ko man sëriñ bi maay wax ak yow di ko di ko di ko di ko wan ko kat dama dama jug ngir jàmmaarloo yow loolu yëpp ci dara ngir fiiraa ngir doomu soxna ni ñu ko xamee waaye itam ngir mën a jaaxase sëriñ bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy tubaab bi léegi nag kon bi sëriñ bi génnee mbàkki baar yi di ngir wuyu ji ndar ñoom dañ ko doon jël si loolu itam les ki jàngee mooy ñoom objectif jubluwaay bi ñu amoon rek mooy dem jëli sëriñ bi bu lànkee nag lu nekk mën na ci xaw mën nañ mën nañ ko mën nañ jël bakkanam mën nañ lu nekk waaye nag sunu borom mii dogal dogal ñu daje ca jeewal nga xam ne jeewal ci état bu tukki bi mooy bërëb bi sëriñ bi njëkk daje ak noonu yàlla yooyu di tubaab yi bi ñu ñëwee euh, daa di daal di daje kenn ku nekk ci ñoom daal di jàpp lim jàpp ndax foofu ñaar moo fi daje mooy li ñuy tuddee maanaam li nga xamante ni moom mooy asolta alxaq mooy pouvoir spirituel bi ak bi nga xamante ni nag moom mooy mooy mooy pouvoiru àdduna bi ñu xam te li war a am dëgg dëgg dëgg mooy pouvoir spirituel bi moom moo war a nag bu sellee Cheikhul Khadim moom yàlla moo ko tax a jóg ak sangam ba sallallahu alayhi wa sallam ñii moom dañoo jóg ngir jël si ko bi ñu ñëwee daal sëriñ bi moom faaw dañuy dem fanaani Ndar sëriñ bi ne leen man ndigal li ma am mu jógee ci sama boroom mooy fii laay fanaan ci jeewal gi te na ma ko waxee noonu la amee nga xam ne foofu la ñu mujjee fanaan ci ci jeewal jeewal itam sëñ ma Lamine wax na ni jeewal ñi ko xamul ñu bari dañuy jàpp ne ndax xam nga sëñ bi ca ayasa ayasa min laa waxaan de jeewale sëñ Moussa xëy na dina ko yëkkati sax ndax mu correspond ak jotaay bi euh, xasida googu sëriñ bi ci jaarwaay yi mu jaar ci tukki bi géej gi fu mel ni maayom ba Conakry xam nga yëpp da ko ciy da ko ciy tudd moom la njëkk tudd ñu bari dañoo jàpp sax ne jeewal nekkul ci biir réew mi waaye jeewal ci biir Sénégal la mi ngi ci ci ci ci euh, département bu Louga bii la nekk foofu la sëriñ bi njëkk dajee ak noonu yi foofu itam sëñ ma la mi nettali na ne xarbaat dëgg am na fi ndax karaama bi fi njëkk feeñ nee na bi sëriñ bi agsee ci waxtu takkusaan mm, dafa fekk li mu yoroon def ci ndox yëpp daal di jeex ñi àndaloon ak moom tamit kenn amu ci ndox te Cheikhul Khadim niñ ko xamee du tiim ndax gëdd gi mu jox boroomam mu war a jàpp waaye nee na dañoo toog tuuti rek daal di jékki-jékki gis jëmm joo xam ne dafa ñëw Eh, di waxante ak ñom waye nak neena na wax ña fa nekkoon xamuñu ko ndax kalima badi yi mi wax langue bi mi wax ñom degguñu ko momit limi wax xamuñu ko waye dal yor na ndox bo xamne ne bi mu ñëwee dafa duy jàppukaay sëñ bi bam fess mu duyal leen ñomit ba seen i baagaan fees mu daal fess ha dem nga xamni ko kenn xamuko ko bokku na ci karama ji nga xamanteni ni mo moo feñ ci tukib geej gi bobu nak señ bi mi ngi war eh, naaru goru tuddu awanullah di ndimbalal yalla loolu itam bokk ci junj yi nga xamante ni day wane ne kat yow fii nga jëm mucc rek nga ciy amee ndax ndax niñ ko xamee jubluwaay bu nekk day am ay stratégie yoo xamante ni ci zahir la ak ci baatin stratégie baatin yi nag bokk na ci kon naaru góor wi nga xam ne fas yi nga xam ne Cheikhul Khadim waroon na ko mu tudd awnullah di ndimbalul yàlla kon sunu borom mi ngi koy junj wan ne ko kat fii nga jëm ngir liggéeyal ma waaye itam ngir liggéeyal sa sang bi ak mucc kase nga ciy amee loolu dëppoo ak xasida gi ma doon wax di xasida ak xamitu ma yansimu nii min ad-dara ci jeewale itam eh, ginnaaw xam nga dem ni ma wax dañ fa dañ fa dañ ci ci samedi bi eh, jaar nañ jaar nañ fi nga xamante ni moom mooy kokki jaar itam Louga lii wane pexe noonu yu bon yooyu mm, sëriñ bi sëriñ ma la muy nettal na ko ci irwaa nee bi ñuy dem bay waaja bay bay ba jub Louga dafa am kenn ci ñoom ci administration bi eh, waaye nit ku ñuul la nag ab Sénégal la itam dafa ñëw ci sëriñ bi ne ko ñoo ngi jub noon yi de Eh, te te est-ce que bu fekkee am nga ay ñaan xeet ñaan yoo xamante ni ak musluwaay yoo xamante ni mën nga koo def eh, ndax doo ko def ndax ndax wax ko rek ngir am ñeewantal ci sëriñ bi waaye nee na sëriñ bi ñaari baat yu gàtt la ko tontu mooy sunu boroom wutiwul wutewul dara te mi ngi fi ñeen loolu kese la ko tontu. Euh, kooku nag loolu jaaxal ko ndax moom lim ci jublu woon rek mooy xay na euh, laaweele sëriñ bi ak itam xam pexe pexe noon yi wane ko ne ko kat boo yoboo nga gën a muslu bu baax a baax ndax noonu yi ma gis euh, jàtt nañ ba ba jekk lool te liñ bëgg rek mooy faagaagal la waaye sëriñ bi tontu ko loolu. ginnaaw bi bi mu demee nag ba àgg ba dal mu mu mu mu mu woo kenn ci interprète ngir wax ko ne ko kat man de sëriñ bi li ma ko wax nii ak li ma tontu dafa mel ni dafa wute daal. Cheikh Khadim wan ko ne ko kat lima ci djublu won wax la rek moy man dama wakilu ci sunu borom mi nga xamne so wero ci mom dara du la lor wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa la illa wa in yuridka bi khairin ne ko dama tënk ci ay yi nga xamne sunu borom neena bu fekke sunu borom dafa la nam tek ben musiba amul kenn koko mana dindi koko mana empêcher ba dul ñew bu fekke tamit bëgg na la jox aw yiw amul kenn ko xamanteni man na ci dara ba lol niñu jaaré djéwal nak, jaar jaar fi nga xamanteni mom moy koki dem luga luga nak ci la jëree mom señ señ bi limi muy safinatul barri muy muy muy sahar gi muy sahar euh, mhm. señ imam imaam mhm. euh, laata ngay euh, dugg ci ci ci barab boobu nga fa la fala fala señ bi tollu won mhm. dañuy delu joxat rek señ Moussa bu ko défé mu barkel wat rek ko défé yit nga mëna a li nga xamanteni mom moy jotay bi kon bismillah sëñ Moussa wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka la ala xuluqin azim وجدت برب العرس الجود والافق ما المصطفى والله لي مولد صفي وقت تمام مطار بالله ونو هلا سلام من بيجي خمالهي وقاني بسوي ولي كان بالمنى ولي قد لا سنبي خمازي ولدت قديما في ابتداء محمدا عليه الصلاة والله ما زان لنخ ولدت قديما في اعتداء وسيلتي عليه سلام الله مولد زافز وانا كل زين من وزين ورغبتي عن المصطفى في خلقه قائز وجه وصول واصل واصل الله زياب بأنان الله نزيل واسمنا وسيل وسيلة إلى غير ربي سكرو خمالي وفي الكلام دیوانا مال دل جور تیرا وی ولی نبی للبرایا رسول بلسوا ناس خزاد وسوي ودادي لربي والمخف فوزني ومن قبهم والله كان بالعفو وثقته بباق خدي من يقيق خلق بالمجوات في انظر داما كل الله له من قلبي آه لغو إلى إدان سابل نبي خايدا لغو زرامة يمتيخ بمدي مدي أخيفتي يا دارين صابنا فامين إلى الخير كل من ليس يبرو أبلغ إلا فاكو نوسي دمين وخدم الكفار والكل جسوا أسودنا الأعداء وزدنا الأعداء ما سابوا في دجا وكل سجاع رازز الكفر جوء وزاد ماتي يقصيد لهم صوت تجري يبو جبان يبكي ويلقى تجرؤه أيا خادم المتارك أيا خادم المتارك yàlla dootul benn ku mel ni sidina Muhammad aya xadimal muxtaari xadimal muxtaari yàlla dootul benn ku mel ni sidina Muhammad aya xadimal muxtaari aya xadimal muxtaari la tëzak sabuwoo fa ma yansum fal maduq maduq muxatawu أبو بكر صديق زو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغرام أبو قاسم الفاروق زرع ونادر به تزدين المصطفى زوزو أبي صوب من دام نافع نزايا لون نور سومن نور نعمل مباویو ابو سبتل مختار وهو ممي عليون على باتر نعمل مجرم أسف رسول الله حسب رسول الله حسب رسول الله rasulillahi rasulillahi asaba rasulillahi ku sidna muhammadu asaba rasulillahi inni qadimo muqibal lakum fillahi wallahu yaqulu asaba rasulillahi inni qadimo muhibban lakum fillahi wallahu ya'lam jërëjëf waay jërëjëf sëñ Moussa eh, xanaa di dellu di la yokkaat ay ñaan rek eh, nde ni ma ko waxee léegi rek kon mi ngi lay ñaanal tawfeexu Seexul Xadim kon imaam dañ lay delloo kàddu gi rek nga wéyale fi nga xamante ne foofu nga toll woon mu mel ne yaa ngi toll woon ci fi nga xamante ne moom mooy Louga kon rek mën ngaa wéyale imaam bismillah jërëjëf suñ daam xam nga ni ñu ko waxee rek euh, ginnaaw baatuñ bi nga xam ne sëriñ bi moom bindal na ko boppam waxal ko zahir si nag mooy état bi nga xam ne moom la sëriñ bi jaar ginnaaw bi mu jógee Mbàkke Baari jaar jeewal yooyu yëpp sëriñ bi bind na ko <clears throat> wa baadama laqu alladina xaraju li daarihi wa fi suduri xaraju saaru maan نحو الوذير مسرع وعند وقت العصر صلوا قاشعا فوف لن جولي تاكسان وبعد لاقاه ذلك الوذير نمكو نمكو نيكو نيكو سيرن بي واخه بامو جاخ nga xamne eh, netali na fa xew xew yoyu nga xamanteni mom mo fa am su ko defee nag ñu jugee jeewal jaar jaar jaar fi nga xamante ni moom def Louga Louga nag ni ko fa la ñu Eh, li muy tuddee moom sëriñ bi safinatul bar ndax ci tukki géej gi li ci am solo mooy Cheikhul Khadim moom ci boppam eh, dafay dafay bind lépp lépp da koo bind date ko waaye itam nga xam ne nga xam ne bisu bisu gis bisu génn bi bind na ko wax ko wax na wax na wax na date bi itam nga xam ne loolu lu ñuy jàppale mooy fekk fan ak yi ñuy màggal waaye itam lépp lu mu jëflante ak ñoom la ko ci sunu borom may lépp da ko bind wax ko Eh, mbooleem xew-xew yi itam noonu kadalik naka noonu yi nga yi nga xamante ni moom moo ko doon eh, transporté eh, moom sëriñ bi da koy bind lu mel ni safinatul barri mooy mooy mooy terrain bi moom la koy tuddee muy muy géeju jéeri ji moom moo ko jëlee Louga yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy mooy Ndar daanaka boo xoolee diggante bi ñu bi mu jógee Màkki Baar yi ba bi muy ag Ndar dal xeyna ñaari fan ñett ci lay tollu muy damalé di 10 août bi ba 12 août parce que ñu bari nee 12 août la ñëw Ndar ni Saint-Louis am ñu wax 13 août waye day melni 12 août bi mo gëna leunt Ndar nak dafa bokk ci momit état étape yi am solo lol ci tukki bi ndax ni mo wax serigne bi ginaaw jaar way yi ci Louga mom dafa jaar rek. Euh, ak ak ak kokki nam fe yenn na fa fanan fa Ndar. sëriñ bi bind na wax ne lim fa daj ci ay coono nee na ay teggin mayu ko digganteem ak boroomam mu koy tudd di ko wane. Euh, loolu day wane euh, tolluwaay yu metti yi nga xamante ni moom Cheikhul Khadim daj na ko ci foofee ca ndar euh, ndar tamit li tax mu yàgg fa moom sëriñ bi ndax comme ni ma waxee boo xoolee diggante fi mu jaar yàgg fa noonu waaye ndar ndar nag def na fa. Euh, mën nga wax euh, weer ak fukki ak fukki fan waaw def na fa weer ak fukki fan muy un mois dix jours li ko waral nee na bi mu ñëwee nga xam ne moom dañ ko dañ ko accusé am lu ko tuumaal ba noppi chargé ko mooy wan wan ko yu baree baree bari yi nga xamante ni kat ne ko yow lii ngay woote jihaad ngay wootee danga ñu bëgg a ak yeneen yu mel noonu loolu moo waral ñoom ñu ñu ñu doon discuter ci nan lañ ko war a def am ñu wax ne nañ ko nañ ko exiler nañ ko génn nañ ko génnee ndax tubaab bi jamono boobu du du laata Cheikhul Khadim ak après sax génne nañ ñu bari te itam loolu dafa bokkoon ñoom ci seeni stratégie yi nga xam ne dañ ko daan teg ngir képp koo xamante ni jàpp nañ ne dañ leen bëgg faagaagal dañ lay dañ lay exiler dañ lay génnee te buñ la génnee doo indiwaale bakkan wala boo bu fekkee dañuy indiwaale bakkan dina dina dina daanaka sa dund dootu ko jaar daal am ñu wax loolu am ñu daq xalaat boobu am ñeneen itam ñu wax ne nañ faat bakkanam waaw nañ faat ba kanam kon ñoom seen objectif tamit bokkoon na ci maanaam fexe ba éliminer sëriñ bi rek ñooñu itam bi ñu waxee loolu am ñeneen ñu dax xalaat boobu daal ne loolu doo xalaat am ñu joxe xalaatu euh, nañ ko tëj emprisonné nañ ko tëj euh, ñeneen ñi itam daal di daal dax xalaat boobu wax ne buñ ko tëjee fii mboolem taalibeem yëpp fii lañuy ñëw daal di fii dajaloo waaye sunu borom ci dogalam sëñ Malamine day wax ne suñu boroom bu fekkee wala borom xam-xam ba am na ci kenn ci euh, borom xam-xam yi ku ko wax ne suñu borom bu bëggee am mbir da koy préparer ay sabab ay sabab euh, cause yoo xam ne moo tax muy am bi ñu discuter ci loolu ñoom ñëpp nag ñu mujjee wala ñu ëpp ci ñoom daal d'accord ci ne nañ ko exiler génnee ko loolu tombé ak li sëriñ bi bëgg waaye itam li nga xam ne moom la ko suñu borom digal te muy génn. mu dëppoo aaya bi nga xam ne sunu borom mi ngi koy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom it ay noonam doon nañ ko fexeel lu mel noonu wa id yamkuru bika alladina kafaru li yudbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullahu wallahu xayrul maakirin bi nga xam ne noonu ñi ngi pexe ci nañ ko tëj wala ñu ray ko wala ñu exilé ko génn ko loolee daloon yonent bi moo dal sëriñ bi bi ñu discuté ci yooyu ñoom ñëpp nag ñu mujj a d'accord ci ne nañ ko génnee nañ ko génnee réew mi loolu moo mooy mooy mooy tax mooy cinq septembre boobu ngay dégg ñuy wax ci ak xew-xew yooyu am ca nga xamante ni mm, dañ ko tuddee ñoom ab àtte rek boo xamante ni xëy na dañ doon gaaral sëriñ bi waaye euh, lu ñu lu ñu kii la lu ñu programme la rek ngir mën a am bunt boo xamante ni mën nañ ci jaataat ba mën a génnee Cheikhul Khadim kon loolu mooy saw bu mu yàgg ndar ndar itam nag euh, sëriñ bi li mu fay def diir boobu euh, xarbaax yu bari am na fa karaama yu bari itam am na fa taalibe yi yu bari itam ñëw nañ fa ci moom di ko ziyaar si waaye itam ñu bari ci moom ñu bari ñëw nañ di jébbalu ci moom ci diiran bi nga xamante ni def na fa def na ko def na ko ci ndar ndar itam bokk na ci bërëb yi nga xam ne du yóbbu woon nañ ko moom Cheikhul Khadim mooy fi ñu tuddee Sardin d'essai nga xamante ni ay gaynde yooyu ñoo fa nekk loolu sëriñ bi moom ci boppam bind na ko waaye wax ne bi ñu fay dugal de dama nekk koo xamante ni dama ko ci sunu borom. nek ak mom itam nek gu woro woro te nek gi ma nek sunu borom ba mu wóor ma lolou moma doy seuk ba amuma lumay tit wala diko ragal comme nim ko waxe won ci khasida di khasida ak hamitu ma yasimuni min ad-darar ndax bayit bi nga al ne al Busayri bokku ci tagat yantabi sallallahu alayhi wasallam moko waxon ne wa man takun bi rasulillahi nusratu in al usdu fi ajamiha tajimi kep ko xamanteni ni ndimbalam ci yantabi sallallahu alayhi wasallam lu joge ci yantabi la wero koku neena bu dajee ki gayne jarul muy loolu sëriñ bi wax na ko bind na ko wax ne wa man takun bi rasulillahi xidmatuhu musaahiba sidqi wal ixlaasi wal xasani fala yaxaafu wala yarjul wara zamana idil wixaayatu tuxni anil kinani nee na képp koo xamante ni mm, liggéeyal yonent bi nga nekk euh, sax ci yonent bi tamit jaari ko muy buntu bi ngay jaar ngir àgg sa borom euh, te sellal ko di ko liggéeyal liggéey bu wér kooku bu ragal dara bul dara lol day junj bopam rek mom Cheikhul Khadim wan ne kon jamono biñ koy duggal ci borob bobu ngir sank ko mo taxoon waye nak fekk na bobu mom mi ngi ci boromam nek gu wér a wér waye itam and ak yentibi sallallahu alayhi wa sallam mota tax bi day wax ni sax ñom nasrani yi yewul yeewuwul dañu dañoo yeewul trompé wu ndax xam nga lima ci digënté bi nga xam ne bi jógee né mbàkki bari bi di ñew xam nga digënté bobu lata ci ci ci ci ajuma ci ngoon ba ci la def xasida ak xam ne tuma yaasi mu ni mina dara waaye xasida ak asiru tamit xam nga ci yoon bi la ko bindee te boo xoolee xasida ak asiru bayit bi ci jiitu rek sëriñ bi dafa tënk lépp dafa wax ne euh, maa ngi dox dox boo xam ne dox bii may dox maa ngi ànd ak gaa yu baax yëpp gaa yu baax yi mooy ñi mu gisoon ci daaw xudóos gii doon wax yonent bi ne ko ci ñii laa bëgg mel muy waa ahlu badar di yonent bi ñoom la àndal di dox waaye nee na nasaraan yi nag ñoom dañoo jàpp ne man ab prisonnier asiru maa la abraari xiina asiru wadanna al ida anni hunaka asiru kon nga xam ne ñaari dox la yu wuute parce que moom seriñ bi mi ngi seen biir waaye neen li ma jublu nag man mooy liggéeyali yonent bi sallallahu alayhi mooy jaamu yàlla jaamu yàlla gu kay waaye ñoom liñ jàpp nag mooy kii ab prisonnier buñ jàpp la ci biir xasida gi di asiru tamit sëriñ bi day wax ne ñoom dañoo waru ñoom nasaraan yi dañoo trompé wu wara xarran nazara bi kaydihi wa danu sununa wa sununu xurur nee na nee na iblis mi nga xamante ni ab warekat la iblis moomu uh, moo moo leen wor ñoom nasaraan yi wor gi mooy bañ jàpp ne ginnaaw jàpp nañ ma maa ngi ci biir terrain bi ànd ak ñoom jàpp nañ ne man ab personnel laa te fekk na ca dëgg dëgg dëgg mën dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak gaa yu baax yëpp ngir liggéeyee li ko ngir tamit jaamu ji suñu borom moo tax mu ne ñoom dañoo déggul te xam nga sëriñ bi bind na wax ne ci ci jeewal rek jeewal nga xamante ni ma ko waxee mooy bërëb bi sëriñ bi njëkk dajee ak noonu yi euh, wax na ne foofee la sunu borom naaguloo iblis naagu mooy yow lii mënatoo ci dara wala kii moom mënatoo ci dara masalan ci misaal koo xam ne dangay ngay ay pexe ci moom bañ mujj teey sa loxo ne la kat bu bu yeboo nga dëpp ndax kii moom doo mën ci dara doo dara ci moom ay yasaminillaahu an da jeewal yi ابليس اذ ناديته بيا ولي فك نسرين بي واخنا ني بيس بوغو لي اوب تي لم دون ويرد موي اي القران بي دي ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دي اي جيغا خامني سونو بوروم دي واخني كان نيغا خامني دانيو جيل لب سن لب جوخ سونو بوروم نيو ني سونو بوروم مو لين ني فيتو مو لين جيل ان شارج دال دار دو دال كون سيرين بي داغي خامني كون ا بي غير ديمبل جام ني لا ndax bu fekkon interpersonnel am kasse na dama nan kon ca jewal ndax ca jeewal la bindee wax ne sunu borom xamal na iblis ne ko kat sama jaam bii di abd di xadimi rasulillah mënoo ci moom dara kon day mel ne dem gi moom demuk ngir xeetali aw xeet la ni ko suñ Musaa Ka waxee ci bayit boobu ma wax léegi ndar itam nag ndar dafa dafa nekk étape boo xam ne étape bu am solo la ci ci ci ci tukki bi ni ma ko waxee léegi ginnaaw sëriñ bi li mu wax xeeti méthode yi nga xamante ni dañ na ko fa ndax méthode yi yu ci bari yii dañ ko doon def mu mu nekk lu fës nga xam ne sëriñ bi da koy yëg yeneen yi nag moom day nekk yoo xamante ni eh, indirect lay nekk benn mu nekk loo xamante ni ñu bëgg ñëw ci moom la ñu fexe ba loolu du am wala teraanga joo xam ne xëy na day day jëm si ci sëriñ bi ñu fexe ba ba loolu waaye sëriñ bi daal day wax ne da ko wëlëm day wax ne ndar moom bërëb la boo xam ne dañ na fa loo xam ne ay teggin mayu ko digganteem ak boromam mu koy nettali ginnaaw diir boobu nag di weer ak fukki fan yi mu fa def nag ñu daal koy exilé nag ñu ñu daal di koy jëlee ndar nag ngir ngir jëm ak moom Gabon waaye ndakaaru lañ jaar ndakaaru tamit nag Cheikhul Khadim mi ngi fii ñëw ci le 20 septembre le 20 septembre euh, di bisu alxames bisu alxames euh, jàpp ajuma la fi ñëw ndakaaru yàggu fa ndakaar yàggu fa ndax euh, sëñ bi moom day wax bu bu fekkee fi mu ko bind wax day wax ne almabid la koy tuddee muy fanaan ma rek euh, nga xam ne euh, li ëpp ci ñi saxal dañoo wax ne ñaari guddi la fa def euh, da ngay dégg ñuy wax ñetti ñetti fan ndakaaru loolu loolu am na ñu koy wax waaye nag bu dee sëriñ bi moom lim bi nga xam ne moo gën a sax mooy ñaari guddi la fa fanaan ndakaaru itam nag dafa bokk ci étape yi nga xam ne moom it yu gën a metti la ci sëriñ bi ndax bi muy jógee ndar di jëw Dakar nee ñu dafa indiwaale koor kooru ngàtt nga kooru naafi la waaye bi mu ñëwee daal bokk na ca la ñu ko teeroo mooy néeg boobu ñu ko dugal néeg bi nga xam ne néeg bu xat la euh, néeg boobu sax Cheikhul Khadim bu koy nettali da ngay xam méttiwaay bi ndax day ni mu koy melalee ni mu koy bind ni mu koy melalee euh, linguistique bi muy jëfandikoo day wax naan ñu dugal ma ci seen néeg néeg boobu néeg bu bon bu xasaw boobu noonu la koy tuddee mu sëriñ bi nga xam ne néeg ba néeg la boo xamante ni dañ ko préparé woon ngir lu nekk rek te itam liñ ci jublu woon rek ngir métti ci moom wala ngir ngir faat bakkanam Euh, wax nañ ne biñ ko bi mu duggee ci néeg bi li mu li ko njëkk gàttandu mooy bi mu tegee tàgga tànkam dafa am benn rab bu ko jam ñii nii ñeen na rab nga xamante ni dafa jam ba ba ba sar tànk bi bënd ko loolu ci ci nettali yu mujj yi am na ñu wax ne loolu ci ña ko fekke woon bi ñu xëyee ci suba gi gis nañ sëriñ bi dafa dafa dafa bànn tànk bi loolu di dëggal loolu néeg boobu itam nekk néeg bu metti ni ma ko waxee sëriñ bi ni mu ko melalee wax na ne bi mu duggee ci biir néeg bi jàng na fa ñaari saar yi ñi tuddee Azzahrawayn ni mooy muy sortu Baqara ak Aali Imraan ni mu guddee waaye sëriñ bi nee na jàng na ko fa ci néeg boobu itam way juróom wu jigéen di soxna Mariam Bousso soxna Jaariyatullah fekk na ko fa nee na di ko di ko dëfal diko diko warna ko ne ko kat da nga nek ci liggéey bo xamne ne bu kawé la na nga na nga muñ te góorgóorlu te xam am natt la rek xam nga lolu sax bokku na ci yi nga xamanteni Cheikh Abdoul Ahad ci woote wu magal gi bokku na ci yi mu netali ci kan mañ ko gasaloon ci tukki ba way itam ci neeg bi neegum Dakar bi metti yoy nak limi metti metti metti serigne bi muñ nako muñ nako ba desek deseeg boroomam waaye nag metti na xeetu metti do xam ba dem na ba Cheikhul Khadim bind ci wax ci loo xam ne loolu daanaka ñaareel néewaa bu fekkee dangay ngay liir am mbindam nga gis ko ndax di bind wax ni ci néeg boobu ida zakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa tathbita toorat ila al jihaadi bil armaayi nassi walakin dabba anil ma nee na fanaan gi ma fanaan foofu bu ma ko fàttalikoo rek damay daal di bëgg jug jël ay arme ngir bëgg jihaad ak noonu waaye nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo may moo may dalal ngir wan ma ne kat lii du dara rek maanaam ay xeetu nattu la le le 21 septembre nag xam nga bi mu ñëwee. ndaka ndakaaru le 20 boobu ci lañ ko dugal ci ci ci ci gaal gu ndaw gi moom la sëñ bi li muy tuddee gaal gu ndaw. muy batu mu ndaw bi ginnaaw ba ci la dem ci wax bu mag bi nag. waaye le 21 septembre nag ci la départ ngir mën a dem nag ci nga xamante ni moom mooy tukki bi te li ci gën a xoromu gën ci yéeme suñ baadaam mooy sëriñ moom bi muy dem xamul fan la jëm xamul fan la jëm li tàmbalee jeewal fi mu jaar jaar kokki jaar jaar Louga ba ba muy agsi Ndar ba nii ñu waxee ne atte nañ ko ne dañ koy exiler loolu yëpp waxuñ ko ne ko yow lii nga def ci tooñ la waaye itam waxuñ ko ne ko kat ne ko bërëb sàngam lañ la jëmee ñoom daal discuter nañ seen discuter ba xam li ñu xam mooy ne sëriñ bi nañ ko exiler yóbbu ko waaye nag moom xamul fan la jëm euh, le 21 septembre boobu nag ci la départ ginnaaw ndakaaru latang muy départ itam Dakar bi serigne bi nekké ci ci ci ki nga xamanteni mom moy bato bi ngir dem di ville pour la mok eh, na murid yu bare bare bare fekk nañ ko fa mouride yu bari ndax xam nga jamono bobu mouride bari nañ mouride magi cheikh baye ma Fall Cheikh Ibrahima Sane Diagne dégg nga sëñ Daaru Asan Ndiaye bari won nañ bari mouride bari fekk nañ ko fa di ñewantal ñi di joy, di daanu waaye itam ka ci gën a fës nga xam ne sëriñ bi bind na ko wax ko nee na Cheikh Ibra nga xam ne moom mooy buntu yoon wi nee na fekk na ko fa ak xol bu metti lool ndax am tiis lool ci ku nekk xam ne sëriñ Cheikh Ibra bëgg ni mu bëggee woon Cheikhul Khadim nga xam ne nga xam ne exemple la ci euh, nee na am ci tiis lool ngir sëriñ bi dem gi muy dem foofu nag euh, sëñ Bachir wax na ne li fi sëriñ bi wax <clears throat> dafa wax ne nee na li leen dénk dana leen mbokk taalibe yi dem leen ngeen jaamu yàlla te xam ne damay liggéey te ñëwaat ngeen xam ne damay liggéey te ñëwaat loolu la leen dénk eh, nga xam ne ñaari li ñu xamoon ci koo xam ne dañ koo jàpp li muy def mooy nangeen ma ñaanal ndax maa ngi dem kat ndax wóorul wala waaye nee na moom li leen dénk mooy dem leen ngeen nekk ci sunu borom di ko jàmm Euh, góor góorlu ci jaamu yàlla ak liggéey te xam ne damay liggéeyal sama sang ba rek te te te te te ñëwaat. foofu sëriñ bi bind na wax ne. Mhm. Euh, ci biir gaal googu ci bisub samedi la départ waaye itam bind na wax ne murit bu màggam ba di seebra fekk na ko ca gaal ga ñu daal di tàggoo waaye nag tàggoo gu metti ndax miy dem ci jéeri ji waaye itam nag sangam bi mhm. dafa war a jël gaal gi nag ngir dem ñu exil ko Eh, da ngay tek fofu sa baram touté rek. inshallah waaw bu ko défé di nga dellusiwaat wat légui inshallah waye dañuy jox seigne Moussa. Mhm. euh momit mu barkel wat inshallah inshallah bu ko défé nak ñu mëna a jotay bi bismillah seigne Moussa. bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim. هذه mutadarahin fi tawsil bi asma'il mufaddalin الحمد wa sallallahu abada على الذي بلا نودا بدا الحمد لله وصلى بدا على الذي بلا نودا بدا سيدنا محمد والآلي وصحبي ذوي النوال الوالي غزال وإن اليوم زهت صلي لو بأسمائي ذوي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب السلام على الذي به تجي اقبل به نظم يا ازلاك عبد من به ناجي يرم ربي من قلب بابراهيم لقفر الذنوب وقفنا الرجيم وكن بموسى وبجان عيسى واقندو يا اقرب صوب محمد رسول الله علي يقر صلوات الله ثم عليهم لها بمنا قد تقبل اسلام الاحسان محمد الصديق والفاروقي جلي باخلاص وتوفيقي ما بعقوز ما نقل نوريني وبعن الوالد ستيني أبي في دنا ما خرايا أمر الخلا والمزايا بقت القدوي بزبيري وأقصد لقني من ديري وبسيدهم نافل الجني من كل ما قاف المفتني وبعام يغبط ما يفيد إلى جنب فاني ما يبيد بيقعد لاجل للعمي أيود رحبا سكسر المي بيقعد لا نقلو مرة anik pada mai duru darara bibi nama sudin raja salam khini balau berani wa kalam ya rabbana bi qurmatil qabas wa qabsatin anik fukulabasi labas basi bi qurmatil qasini wa qasini jili fi darani bi bi qasim tayri wa riya madmari bi qurmati bi ibrahim alim malayal isra wa ma bi jaqibati mada aftin nasin an kulli ma yajuruni laqab subirqatan wa zin bi kulli atram wa dabu kulli zaman wa amanidum ya qurabi kan bi mukusin wa jannibun وودع المريد ثم رجع الى الجزيره بقلب وجع نينا تي بير غالغي مريتام بو باخ بيغا خامني موم رك لا بغا دي سيرلو فك نكو فا دي دي دي دي تاغتو اك موم واي ام تي نك خول بو مت لول و خامني سانغام بي موم ميغي دم تي توكي بي گيج گي واي نك موم مو دادي دلو تي جيري جي تي فامو نيكون sëriñ bi nag daal di vingt le 21 septembre 21 septembre euh, ci la Cheikhul Khadim defee lu ñuy tuddee julli géej gi xam nga julli géej sax ñu bari dañuy faral di wax léeg la nga gis koo xamante ni xëy na da koy da koy da koy dàq wala da koy critiquer wala ne amul waaye sëñ mulaay buso bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a jege Cheikhul Khadim moom bind na ko te bind gi mu ko bind rek nag doy na euh, sëñ mulaay bind na wax ne Cheikhul Khadim جلنا تيجي بند ببند على وقته يتمت وفي اليوم صلى العصر يجري بجلده مع الفلك يبدو راكعا خير ساجد جل تاكسان الله لول نك سيرين بي دافا واخني موم كرامه جلي جي جيج ndax lim wax moy karamati qat yadi fi khidmati al muayyad wa kana li bil afyad allah mulil Euh, dafa wax ne loole lu ko sunu borom digal la rek ndigal li jub comme ginnaaw julli ñun ñëpp lu ko sunu borom sant waxtu yi jot na euh, te xam na ne mënu ko ñàkk def moo tax mu mu def ko waaye defu ko defu ko karaama su ko defee nag ñu daal di kii ci ci biir ci biir gaal gi itam wala ci biir batu bi ñu dugg itam di batu boobu mu wax ville Pernambouc euh, nga xamante ni ca Brésil lañ ko lañ ko kiiwee lañ ko defaree wala fa la jógee ci biir bato bi am na xew-xew yu bare bare yu ci am ndax eh, ci tukki bi di nga dégg nag wi ñuy nettali am na nag woo xam ne nag wu ñu yefal la lool nagu nagu nagu kii yi la nag yi ñu miin yi ñu daal di koy ëffal mu jëm ci sëriñ bi ngir bëgg koo fàdd eh, nag woowu ci ci taarixal kat yi yu bari nee ñu nag woowu mu arraf yu bari li ñu saxal mooy ci biir gaal gi la sëriñ bi nettali na ko biñ ko biñ ko laajee ne ko ana nag wa mu ne nag woowu dey suñu borom maanaam denc na ko foo xam ne kenn xamul daal benn na itam wax ne nag wi biñ ko afalee ba muy ñëw euh, dafa mel ni euh, ka anna laha ajniha taarat ka anna laha ajniha na bi mu ñëwee ba jub ko dafa naaw ba mel ni ko ami laaf ni muy def nga ne nga xam ne loolu suñu borom moo ko tàggat ba kenn xamul daal fu mu fu mu nekk waaye lor gi ñu ci jublu woon ngir mën a lor sëriñ bi loolu mënul nekk bi bi ñuy dem nag ci yoon wi ni ma waxee xam nga sëñ bi moo xamul fu mu jëm waaye nee na sëriñ bi nee na laata ñuy àgg am na ku dugg ci biir bato bi daldi ñëw ci moom nuyu ko ñëw ci incha allah di daal koy nuyu daal di saafu woon moom euh, ba noppi ne ko man de dama dégg ne yaa ngi ci bato bi ñu lay exilé di la génne ngir yóbbu la Gabon sëriñ bi nee na ci kooku laa déggee turu Gabon bi ci laay doo xam ne nag man Gabon laa jëm ne ne ko nag damaa ñëwoon sëriñ bi nee na kooku ab saalum la ne ko damaa ñëwoon ngir sàkku ci yow rek ñaan ak nga dénk ma waaye sëriñ bi daal di koy dénk ndénkaan lu am solo ne ko nga xam ne kat foo man nekk rek euh, nanga nanga xam ne yàlla moom benn buur képp la amul beneen buur bu dul moom ne itam na nga xam ne képp koo xam ne bëgg na jaamu yàlla te mm, tënkuwul ci ni ko sunu borom rëddee dina pett waaye itam képp ko jublu sunu boroom te jaareewu ko ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit na xam ne loolee muy def rek ak perte la nga gis kon tawxid jërë juré yi ji nga xamante ni moom moo nekk ci sëriñ bi ndax mi ngi ci biiri noonam di jëm ci tukki bi nekk ci xat-xat waaye kii ñëw naan ko dénk ma teewul la mu koy dénk mooy tawxid mooy boo demee na nga na nga góorgóorlu ci jaamu yàlla na ragal yàlla waaye itam na nga xam ne kat sunu borom buntam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar nañ tamit fi nga xam ne mooy Conakry jaar kara fii nga xam ne moom mooy Garam Bassa ñaari bërëb yooyu yëpp jaar nañ fi xam nga ci biir xasida ak ay yassa sëriñ bi bind na ko bi mu bindee ay yassa bi nit laa waa ngi dajeewal yi iblisa idna day tuubi yaawali loolu loolu jeewal la nafaal da xayrillahu xablu fi ndari bi ahli badri nusori kadari loolu ndar la نبال غير الله في النكار كل أذن لي جره المكار موي بخي يوي ما دون واخ خامني نون سون بام علمني الرحمن في السفينه بانني خديم بالمدينه تي بير غال جي تام بيمي دم نينا تي لاكو سونو بروم خامالي يو ياي ليغي كاتو بروم مدينه دي ينتبي صلى الله عليه وسلم تي كوناكي نك دنج فجار رك waxna ni ne baraanillahu la kiri, konakiri min kulli ila ilal manakiri. ndax ci konakiri serigne bi wax nettali ni wax ne am na koo dafa ñew ngir don ko don ko yejji da diko retan ko wane ko dal ko di ñew ne dafa ñew dal di jaar sama tur ne ko yoy ay diw Cheikhul Khadim mu ne ko serigne bi ne ko waaw neena mu commencé di di di wax diko diko diko ko ki diko ko ki daal la di ko ndokk li la dal xamoon la dal ba nopi diko ko di ko dëkk waaye nee na sëriñ bi nee na dafa mujj bato bi daal di yooxu maanaam def benn sonorisation boo xamante ni miinuñ ko muy mu dem nag toog moom waa ji di xaar loolu dal ba ni ñu continuer ba loolu dal nga xam ne neen na ci yoon bi la mujjee wàcc loolu moo tax mu bind ne wax ne euh, sunu borom daqal na ko ca Conakry lépp loo xamante ni noonam bu bon boobu daf ko doon fexeel ca garam basa tamit euh, moom it foofu romb na fa rek dafa romb dafa romb léegi nag jaarukaay yooyu yëpp nag Cheikhul Khadim daf fi jaar rek waaye fi nga xam ne fi la gën a yàgg ci tukki bi nag mooy Mayumba ba def na fa juróomi at tukki bi juróom at la euh, ginnaaw bi mu jógee Libreville Mayumba la ñu ko indi euh, kon boo xoolee diggante Conakry Libreville Mayumba Conakry googu daf romb waaye kon maanaam Libreville Mayumba daanaka mën nga wax ne ñaar yooyu mooy tukki bi euh, mu daj fa nag coono yu méttee méttee métti Eh, gis nga bi mu demee ci ñaareelu at mi wala ñetteelu at mi rek mi ngi nettali koor gi mu fa woor di koor gu metti koor goo xam ne bu fekkoon amul farlu di bind weeru wolof yi li ñu tuddee weeru wolof mooy calendrier musulman bi eh, dafa fekk mu koy bind waaye nee na bu ko bindul woon weeru koor yi dina ñëw ba dem te du ko xam ndax nee na dëkk boobu lu xamuñu sax luy lislaam xamuñu luy lislaam dunduñu ko bëgguñu koo ko dund. waaye nee na ci taw fee xam nag sunu borom fekk na doon na def moom muy bind weer yi ba xam ne nag ñu ngi ci weeru koor nee na mu daal di woor bi mu wooree tamit daal di ba waxtu dog jot bu dog jotee daanaka du am lu mu dogee day daal di dagg ci garab yi rek daal di koy yéene mucc ko noonu ngir ndox mu mu naan bi koor gi demee ba jeex itam xam nga ko woor ba koor gi jeex da ngay génne ñu tuddee murum koor muy zakatul fitr war war war na ko euh, waaye mu bind. ci khasida nak khasida go xam ne ci gogu ci tar juman ja di wax sunu borom ne ko kat sunu borom xam nga ne kat weeru koor yow ya ko diglé te wor na ko ning ko diglé waye nak wor na ko bamu jeex euh, waxtu wi day awmu luma murum koor suma ko amone itam bu ma koy génnee duma gis ku ma ko jox ndax fi ma nek souci lenn ay julit nek fi waye nak def xasida gi ngir wan sunu borom ne ko kat euh, ma ngi lay gërem ma ngi lay sant. ci ci ci ci ci natt bi waaye itam wan ko ne ko kon xasida gi nag jàppal ne kat moom mooy murum koor mi mooy taxawaayu murum koor mi muy xasida gi nga xamante ni ñaari xasida la di xasida ak ala innani utni ala xayri munami ak di xasida ak ala innani arju min alwasin laqi muy xasida ak ala innani arju min alwasin laqi bi jaahil muqafa nasiril xaqi bil xaqi di xasida goo xamante ni tamit moom it xasida gu yéeme la lool ci Libreville tamit Libreville Eh, dinañ ko nettali lu bare bari sëriñ bi xam nga tamit itam eh, netali nako netali kat yu bare bare bare ci ñi nga xamanteni moy mooy kat yi bind nañ ko fofu euh amna pexé muñ ko fa fexal mo xamné muy kan mañ ko euh kan momu manes na wax ne ci livre la waye itam eh, do ki nañ ko ben bis bo xamanteni dañ ko yobbu ci kaawa ngir mëna jël bakanam loolu sax serigne bi ci bopam bind nako serigne bi ci bopam bind nako euh wax ne suñu borom gatchal na len ñom officier yoyu noonu bëggoon def loolu lu bon loolu ak kaña andalon di sen chef ak ñom ñepp musiba biñ bëggon ngir yene mako neen loolu suñu borom daf len ko daf len ko delloo nga xamne ne dañu wax ne dañ ko genné ci hall bi nonu ci dun bi nonu ci lañ ko genné daal di ko fay daal di ko fay teg ñoom ñu ñëw jàkkaarloo moom daal di daal di sox kenn ku nekk daal di daal di sox ngir bëgg bëgg kii ci kawam bëgg dal ci kawam. waaye nee na amuñu lu dul dañoo jékki-jékki rek mel ni dafa am lu leen tiital ñu ñu ñu ñu ñu daal di ñu daal di jaxasoo euh, loolu nag bi mu amee ki nga xamante ni moom moo nekkoon seen chef ñoom dal di leen di tëkk tëkk ne leen na ngeen fexe na fexe ba xam ne xibaar bi daal bu mu senn bu ko bu ko kenn génnee. nee na ci ginnaaw loolu sax moom chef bi ci boppam ñëw na ci moom Cheikhul Khadim di wax ak moom ne ko comme di ko gëstu. ne ko de yow dafa mel ni ni ma la gisee. am nga ñoo xam ne boo bëggoon a xeex wala ñu song la wala am nga ñoo xamante ni xëy na dinañ la dimbali ak yooyu. waaye sëriñ bi ci yeewute gi nee na ma mel ni ku ko déggu rek man tamit daal di koy kàll la. ne ko ne ko loolu ngay wax lu mu ay nit lañu wala ay jinne nee na mu daal di retaan daal ne ma li may wax xam nga ko waaye ñooñee ñu mooy waa ahlu badar waa ahlu badar ay ay jëmm yoo xamante ni ñoo kaalaw ba seen i jëmm seen xar kanam rek mooy feeñ daal leen di tiim nga xam ne bi ñu siggee ñoom kenn ku nekk ci ñoom mm-hmm. loolu ngay gis am na sax ñu bind saxal ne dañoo tiiri seen bopp ñoom ñëpp daal di faatu waaye li wér daal mooy histoire boobu loolu moom am na moom macha allah macha allah euh, sëñ Imam Modou euh, fi nga toll ci waxtaan maanaam yàllul woon sax kàddu yu dugg waaye dafa mel ne nag li ñu amoon ci waxtu daanaka moo moo lool bu ko defee hmm. ñu jox la kàddu yi nga xamante ne moom ngay tëjee rek hmm. mu doon tàggoo bu dul tàggoo ndax yow moom faaw nga jaaraat <laughs> incha allah ndax lii moom hmm. eh, dafa am ci point bu am solo boo toll boo xamante ne am na lu koy àggali dëgg loolee nag dañuy jàppaat beneen jotaay rek bu ko defee nga mën koo yaatal incha allah defee ñu jox la kàddu gi rek incha allah incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf suñ suñ daam xam nga xam nga ni ma ko waxee tomb bi dafa nekk tomb bu am solo ndax Sering bi ci bobam sax buy buy nettali tukki bi da ngay yek mettit bi waye itam yëg bi nga xamanteni ni la ci dajé itam yek moom nim koy nim koy euh ndax adjectif adjectif ah, nim ni ni sering waxee sëriñ bi adjectif qualificatif yi mi jëfëndiko rek moy wone ne manam jëmi tukki bi nim metté ndax da ngay gis muy wax ne al ghaiba al baida da kay wax eh, tukki bi day wax itam ne Euh, tukki bi nga xam ne bu dul woon moom rek làmbay ñaaw niñ koy waxee euh, day wax itam ne tukki bi nga xam ne ci la ma sunu borom defalee lépp ci laa amee lépp ndax ndax ndax bind na wax ne ñett yi muy matu ko imaan matu ko islaam matu ko ihsaan nee na ñett yi ci tukki bi la ko amee te nasaraan yi képp ko jaxasoo ak ñoom tuuti rek sa ngëm day day rekkiku maanaam da ngay da ngay weddi yàlla moom nag ci ci yokkuteeg ñett yooyu ñett yi nga xam ne mooy ñetti xaajal islam yi muy iman islam ihsan ci ci tukki bi di tukki bi géej gi la ko la ko la ko amee euh, ni nga ko waxee euh, moom daal lu lu lu doy waar la ci moom ndax ni mu ko waxee rek xëy na dañ dañ ci kii yu bare bare bare waaye buñ ko nettali woon dégg dëgg wax itam yenn xew-xew yi jàpp naa ni jotaay moom du àgg <laughs> ndax daanaka du doo xaj ci ci ci nopp doo xaj ci bopp tamit Euh, su ko defee kon ni nga ko waxee noonu rek xay na ñu tënk foofu incha allah ginnaaw ñu ngi ci état bi daanaka euh, dina nekkee état yoo xamante ni yu am solo la ci ñi xam Seexul Xadim nag lan la fi dund rawatina ak état bi nga xamante ni moom fa la gën a yàgg di maayom ba euh, sëñ bi la fa def def na fa li ëpp ci jihaat ji mu doon jihaat ak noonu yi foofee la ko defee muy bind bi mu doon bind di leen adressé ñoom noon yi dem na bay waxante ak géeju maayom ba di ko wax ne ko kat na nga wéetal yàlla loolu di taw di tawxiit ju kawe kawe kawe ayaa baax lu waxit laa tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim rabba wan ne géej gi ne ko na fexe ba yaw bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale yàlla ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla ñaar la ak ñett la ak yooyu na nga def yàlla rek muy kenn li ci yéemee itam ci géej gi Cheikhul Khadim bind na di waxante ak moom ne ko nang ma seereel ne man mii di wax ak yow jaamu bi yàlla la di liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li yashhad bi kaw nii abda man yaxfiru damba wa kawni xadimal mustafa baxra ma yomba aw baxru ma yomba walisha bi anni la udahinu mushrikan qalilan habiban lilladi karramal jamba ma yomba kon waaye itam coono yi ñuy nekk ci tukki bi yi ci ëpp mën nga wax quatre-vingt pour cent yëpp Cheikhul Khadim ci maa yomba la ko dajee kon maa yomba day bërëb boo xamante ni tamit moom it xëy na dinañ ko waxtaanee waat ci yeneen i jotaay Euh, sëriñ bi itam bind na fa xasida yu bari mun naa ci tudd lu mel ne xasida grandito lu mel ne xasida euh, lirob bin ravourin euh, xasida yooyu nga xam ne xasida géej gi la waaye xasida maayom bala foofu itam sëriñ bi nee na def na fa ay taalif yoo xamante nii yeneen i taalif melul ni ñoom waaw ndax kawe gu ñu kawe ak yëkkatiku gu ñu ko kon daal alhamdulillah noo ngi gën santaat suñu borom bu baax a baax a baax ci taw tawfeex ji mu ñu defal ñu mën a toog di waxtaani ndam yi di nettali itam jaaruwaay yi nga xam ne moom la a Khadim jaar te loolu lépp nag di tawfeex ndax rek moom jubluwaay bi mu ci jublu woon rek mooy ngir jaam ñi texe waaye loolu nag di di di sunu tawfeex ñun mu woote itam nag bis bi nag ne nañ ma ci santale sunu borom loolu xay ne moom it ni nga ko waxee dinañ ko waxtaanee waat ci yeneen i jotaay ndax dem gi moo indi bis bi ñu fàtte ne sëriñ bi ci fukki fa ak juróom-ñett yi ci weeru safar bi xam nga nee nañ léegi ci la génnoon dem ci tukki bi tombé 10 août 1895 bis boobee bu dellusiwaat waxtu wu nekk sunu borom day yokk natt yi ba ca nag ba 1918 ñii ne 1921 nga xam ne ci la commencé nag moom sëriñ bi di dundal màggal gi bis boobee la toog di xaar natt yi sunu borom xamal ko ne ko kat fi mu ne natt yi moom jeex na li ci des rek mooy ak cant moo tax nag mu bind wax ne chukru ilahi xaana fii turaabi baada jamili sabri fi iqtirabi jot na nag ma sant sunu borom ci sama suuf si sama suuf si sama dëkk bi ginnaaw bi nga xam ne nag Eh, muñ naa muñ gu méttee méttee métti muñ naa muñ gu jéggi dayoo muñ gu kawe lool ci méttit ak tartar yi nga xam ne sama noon yu bon yi doon nañ ma ko teg ci tukki bi ah kon nag ñu ngi ji gën sant bu baax a baax di ñaan suñu borom mu defal nu tawfeexu ñu gën a mën a nekk ci sëriñ bi waaye itam tawfeexu di ko di ko di ko waxtaanee di ko dund itam di ñaanalaat Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi lool ba yenn yi nga xamante ni am na ko ngir liggéeyal Cheikhul Khadim rek niñ ko waxee mu def ko nam ko soobee te ñu ànd ko moom di la gërëm bu baax si baadaam ci yitte ji ak ci e, joxe gi cër waaye itam ci bëgg liggéey bi xanaa xanaa ak di di di di ziar tamit mboolem ñi nga xamante ni ñoom nga àndal liggéey bi muy sa cameraman yeeg technicien yeeg ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel te di leen wax itam nag liggéey Cheikhul Khadim jar na ko ndax ni ko Cheikh Saliou daa waxee liggéey Cheikhul Khadim moom e, ku ci nekk matul yërëm ndax li lay wër ne bu fekkee sëriñ bi képp moo tax da lay leer ne rek e, boo ko ca fayee ak kenn buddi la lay fay boo ko ci jëfalee ker guddi la lay fay boo ko ci lebalee ker guddi la lay fay kon nag ñu ngi leen ci gën a encouragé bu baax baax nii ngeen ko defee itam nii la ndax média dafa toll foo xamante ni faw ñu gën ko redresser waat gën a xamaat ni ñuy waxee ni ñuy waxtaanee sëriñ bi gën a xamaat nan la ñuy waxtaanee am mbindam waaye itam nan la ñuy waxtaanee ak njabootam loolu ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax baax yéen tamit di leen ñaan suñu borom moo defal leen tawfeex taxawu leen ba yéene yi ngeen am itam ngir liggéeyal Cheikhul Khadim yéen it ngeen def ko nu kawe lool nu leen di dégg fu nekk incha allah te lépp ànd ak tawfeex ñu ngi dogal ngant bu baax a baax a baax kon di ziara mboolem mbokk taalibe yi yëpp waaye itam di ziara ñi nga xamante ni xëy na suñuy soppal dinu dinu dinu dinu topp dinu bàyyi xel lépp loo xamante ni yëkkati nañ ko ñu ànd ci ak noonu Eh, man na ci tudd rek jotaay yi nga xamne ne bi weeru safar yu tambalé ba légui doon nañ ko def wax deug yalla ñu japp ci ci anam gu rafet di ziyaara nak ko xamne kenn la ci man ndax jotaay yoyu mom moko doon di sëñ Abdoulahi Ndiaye général di sama wolere di sama xarit lool ko xamne tamit tamit di murit nako ko ngi sakku ci ñepp rek ñu ñaanal ko suñu bam defal ko tawfex gën ko degeural di ñaanal itam mboolem mourid yépp rek di leen ñaanal maglu jamm ak tawfex gu suñu borom nangu barke Cheikhul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu sëñ imaam Modou Gueye mi nga xamante ne tey moom lañu ñu dalaloon ci seen jotaay waajal màggal gi kon mbokk yi lii mooy li nga xamante ne moom lañ leen indiloon tey seen jotaay waajal màggal gi noonu nag lañ koy wéyalee di ko wéyalee ba bés bi nga xamante ne nii mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon mbokk yi foofu lañuy wàccee suñu kàddu rek di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu